عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق ci Barham Universel Media mbokki taalibe bii di waxtaan ak yéen eh, mu ngi tudd Mamadou Niane wala nga ne Mouhamad Niane eh, di muridu cheikh yi muridu cheikh Al Hassan Deme waaw soo may laaj nag Thierno Assane Deme kan la woon ci Baye ma mel ni yaa ngi may laaj Thierno Assane Deme ak wiraasa xam nga Thierno radiyallahu taala moom dafa nekk taalibe bu jot sàkku téefam ci Baye taalibe sàkku téefam mooy lan sàkku teefam mooy yàlla waaye référence am mooy sëriñam kon Thierno mujj na am yàlla mujj na am référence am maanaam mujj na di Cheikh Ibrahima Niass mujj na di xalifa ci Cheikh Ibrahima Niass euh, Thierno Assane Deme radiyallahu anhu pour nga xam kan la doon ci bàyyi dama lay ñaan rek nga dox tuuti ay tànk ci gannaaw maanaam ci taarix Cerno bu bëggee xam kan la doon ci bàyyi seetal ma ki ñu daan wax Seydi Ali Harazim ci bàyyi ci Cheikh Tidiane wala nga xoolal ma ki daan wax Seydi Mouhamadul Arabi Dambaawi ci Cheikh Tidiane ñoom ñaar ñooñu su fekkee dox nga ci seen lef ci diggante ak Cheikh Tidiane ba xam fan lañu taxee taxawoo soo xoolaatee Thierno xool Baye da nga xam kon Thierno kan la doonoon ci Baye waaye kan la duggal la ci taarixu Seydi Ali Harazim wala ma duggal la ci taarixu Cheikh Mouhamadou Rabi Damawi dana jël temps bi nga xam ne moom la te du jeex moo tax damay yem foofu rek incha allah gëstukat yi nañ gëstu ji waaye li ma lay wax foofu nag ci tënk kon mooy. Ceerno Xasan Dem radiallahu anhu tekkandeer la woon ci bàyyi Ceerno Xasan Dem radiallahu taala anhu kooku takkandeer la woon ci bàyyi wala ma ne la tarjumaanu bàyyi la radiallahu taala anhu moo tax kooku euh, du daan dafa bokk ci góor ñi nga xam ne duñ daan waxantu lépp lu ñu wax rek ci pay yàlla wala moom daf doon wax ne mooy aaxirul muhaqqiqiin loolu nag li tekki mooy li nga xam ne moom mooy gonge ko ci pays Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dafay jaar directement ci moom mu di ko génne ci lamiñ woowu di ko génn ci xalimaam bi soo weddee loolu dama nga liir Kaashiful Albaas boo fa jógee nga ñëw nag xool li nga xam ne moom la fi bàyyi ci téere dégg nga ni ko Nuurul Kamaal wala ni ki Miftaaxul suul wala ci téeram bu rëy boobu ñuy wax moo raju bi daal bistaati an nabi mutala kon da nga gis ne dëgg dëgg dëgg dëgg kii li ma wax ci moom loolu lu am alhamdulilah nag taarix moom du fen l'histoire ne ment te toujours nag boo déggee nag ñu lay wax naan lay deel fungandiku bés yàlla yi waaw ndax bés yàlla yi dañuy indiwaat lu mel ni démb maanaam toujours rek ñu ngi indiwaat li nga xam ne dafa mel ni démb moo tax ñu wax ne àdduna yàgg na waaye nag su ëllëg ci démb rek lay génne moo tax tey su taarix di dox tey ba ren jii ñu ne Laylatul Katmiya bi ñu ngi ko tuddee góor bu ñuy wax Baye Ma Abdou Niang te Baye Ma Abdou Niang génnee ci kër goo xam ne mooy kër tafsir Amady Boucar te tafsir Amady Boucar di ki nga xam ne moo njëkk a feeñal maam El Hadj Abdoulaye Niass dégg nga Ma Abdou Niang moomu ñëw soobu ci géej gi naan ba màndi te bàyyi wooteegul fay la ne mekk ak moom ànd ak bàyyi ci biir xunt yi ci biir xunt yi laa wax dégg nga ba pay fayda bi feeñ dégg nga ñi soobu sóobu waaye Serigne Ousmane Ndiaye sóobu mel na mel te ñëpp xam nañ ko wala ñu néew xam nañ ko waaye ña xam xam nañ dégg nga 1947 Serigne Ousmane Ndiaye moomu ak Baye Ma Abdou Ndiang jógee koo fi fayda ne eh, Thierno Assane dem ne lay ne cëpp ci fayda bi taxaw ñaari jant dem moom mu ñëw fenk fenk kon nag waxoon naa la nga dox ci diggante Mouhamadul Arabi Dambari Seydi Ali Harazim seen diggante ak Cheikh Tidiane léegi sant naa la nga dox ci diggante Serigne Ousmane Ndiaye ak Baye Mabdou Diagne ak Baye léegi nag xoolal Thierno ubbi sa bëri na jàkk tukulóoru Baye radiyallahu taala kooku mi nga kooku mooy kan kooku mooy aynul kadmiyat yi kooku mooy aynul kadmiyat yi moo tax mu mu Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu fees ci moom dell ba ne moom dana taxaw guddikat métti googu mu di ko fuuglu ànd ak jaam yàlla yi ndax guddikat métti mooy guddik awliyaaw yi mooy guddi gi nga xam ne wali yàlla yëpp su weeri teroo rek ñoom ñëpp dañ koy di koy fuuglu dégg di moxoñ moxoñ seen bakkan yi di ko fuuglu ngir ngir ngir ngir mi ngi ñëw lu tax ndax kii di sultaan awliyaa yi kii di Cheikhu Tijaani ci dañ ko ràngale woon maqaam bu rëy boobu moom Cerno nag moo njëkk di ko def fii ci suufu Sénégal alhamdulilah fi mu nekk nii tant yi ëpp nañ kenn xamul nu mu toll te loolu incha allah fu maratan uxra taraw na ajaban kon ñu ngi ndokkeel cerno yi di ndokkeel ñooñ zaawiya bi su ma waxee ñooñ zaawiya bi nag tey sama xel dafay dem ci Mouhamadul Kabir xel dem ci Mouhamadul Habib waaye ci seen rakk ja seen xaadim ba Abdoul Baaxi waaye dafay dem ci Seydi Ali Tamasini waaye dafay dem ci Seydi Ali Harazim waaye dafay dem ci Seydi Arab ibnu Saayir su ma waxee ñun zaawiya bi kanaa yow nga xam ne xam nga jawahirul maani yow mi nga xam ne xam nga kutubu tarixa bi kon xam nga ne kon bu may wax ne maa ngi sargal waa zaawiya bi di leen ndokkeel tudd tur yooyu kon yaa ngi foog ne maa ngi tudd ñeneen gaa yooyu jiitoon bi waaye déedéet mooy ñi nga xam ne Cerno njaboot ak deretam gi ñu li leen dippee ngir lan ngir fuuglu Cheikh Tidiane Chérif Fati kon nag Cerno daal moom mooy aynul katmeet yi moo tax mu doon loolu mu doon ci bàyyi te xañ na ñu bëri mënuñ koo gis asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alayka salaatullahi thumma salaamu fa